waaw ñuy ñetti nit Omar Mbaye mu ngi dëkk Sicap Mbao nag ah, eh, Amet mu ngi dëkk Diamaguène aju ba si dëkk ci Coxo léegi nag eh, ñu dem foofu eh, jëwriñ ji Alaaji Njaay jox leen cinquante neuf nag ne leen sàmm ji leen ma ko ñu dem yóbbu nag yi ci ñetti autoroute ak péage di ko sàmm ko léegi bi ñuy sàmm ko fekk sama jàmbaar bi àjjuma la jóge fii suuru àjjuma la jóge fii dem gaa yi booy dem ànd ak booy dem sàmm ji nag yi comme ay xaritam nag ñu seet si leen ñu ne dañuy sàmm nag yi mu àndaa leen ñoom buñ demee ba àll ka di sàmm nag yi toog ba ay commentaire yooyu ñu xiif ba pare mara foofu ne léegi man dem dinaa utul patrouillage pour Senda pour naan nga xam ne ñooy arrosé nature bi bi ñu demee foofu ñu ut ndox naan ba pare daal di ëpp nag ne léegi dafa seen bopp seen ba pare teg ci benn taatu keppaar quoi. nga mën Cheikh Monsieur ba zone yooyu ñu su euh, kanam ñu dàq nag ko léegi bu toogee foofu ay seen cinq heures ñu ñëw xool nag yi gisuñu nag yi suñ leen bàyyoon ñu bi yëpp gisuñu nag yi ci vendredi bi ñu woo jëndin bi wax ko ne ko ñun de nag yi suñ ko doon tànnee su leen ko bàyyi leen bàyyi woon ñuy leen ñu dem uti ndox naan sël mu ba pare toog nekk di ci kenn benn taatu garab ñu ñu ñëw fekk ñu fi nag yi léegi ñu ñëw seet nag bi àjjuma bi gisuñu ko léegi asamaan seet bi samedi ñu ñëw jàpp Omar Mbaye ak eh, Ahmed ñoom ñaar jël leen yóbbu samedi gendarmerie ba ca yoonu eh, Kaolack bi bu nekk gendarmerie ci mbir ci yoonu Kaolack bi foofu lañ jël Omar Mbaye ak àjjuma eh, ak Ahmed Ndiaye Ahmed leen foofu ñu leen téye foofu asamaan seet bi dimanche ñu ñëw jëwriñ bi nga xam ne moom lañ jox la gi mooy responsable tenn bi jëwriñ boobu ñu jël ko jëlaale sama calmat àdduna si yóbbu leen buñ leen a ëpp sax ñu yóbbu leen euh, prison bu Mbuur téye leen foofu déet moom mu ngi si dëkk ba toog moom te léegi ma ne xam yu tel noonu yu bare noonu nam la ñuy jëlee jëriñ bu tel noonu yëkkati responsabilité bu tel noonu teg ko ci loxoom yëkkati nag yu bari di ko ko dénk bi ñu jël xale yoo xamante ne bi xamaguñu dix boobu fekk leen ba loolu am ci léegi ñu jël xale yi teel a ci jëriñ jooju léegi dóoru gëm lan mooy taxawaayam léegi nag léegi boobu ba tey ñu ngi téye xale yi naan dañu def enquête am na ci nigaayu turandoo Omar Ndao bi ci boppam Omar turandoo dafa nekkoon Italie xaw ma Espagne Espagne la nekkoon yaayu Omar téléphoné ko wax ko ko mu dem ci seex bi wax ko ko ndax boobu mooy jëwriñ ne foofu ci seex bi mu dem ba France ci seex bi wax ko ko wax bi def ko ci nekk nii xale yi ngi ci loxo yoon il faut yoon yoon il faut yoon xale yi ñu ngi ci loxo yoon il faut yoon def liggéeyam ndax soxla wu ma xale yi ñu ci ginnaaw laa soxla léegi bu soxlaa ñu kay da ko a xale yi tuuti yoo xam ne amaguñ dix-huit ans jox ay nag te xale yi joxu woon nag yi xale yi dénku woon nag yi xale yi sàmm leen xale yi te xale yi duñu ay sàmmkat duñu ay béy duñu dara xamuñu dara

moko ci duggal ci dugal ne lan leen yóbbu sey leen fa ay fan jël leen ko yóbbu leen tribunal tribunal ñuy daagante tribunal ba di ci yoonu hôpital Mbour bi bu mag ba ci hôpital Mbour bu mag bi tribunal bi nekk foofu ñu daagante ci procureur bu ñu leen fof foofu ba ngoon jot ñu dem dénkaane leen police su ko ëpp leen ñu leen di ba ngoon jot ñu dénkaane leen police bu mu ci gi procureur bi def ko jël ko président bi mooy tribunal bi ci wetu garage Dakar bi ci kaw tali bi waaye ñoom ñett ñëpp ñu ngi nekk gendarme bi te fi mu nekk nii jàpp ñu ci dara dama yaakaar ne Cheikh Béthio Thioune moom ci boppam bu ne moom sëñ Saliou mooy sëriñam te sëñ Saliou fonk lu du gële sëñ Saliou Mbacke fonk lu du gële gënee ko gën a lim nañ ci am kàddu kon Cheikh Béthio Thioune warta gis ay gone yoo xam ne amaguñu 18 ans ah Cheikh Béthio Thioune ci boppam dix-huit ans am na yam matagul ko ñetti sax dix-huit ans yi matul ah ay xale yu tuuti lañu barke Borom Tuubaa boo leen gisoon sax da nga naan déedéet ah.